mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futur Média ñaari waxtu jot na xibaaru digg bëccëg gi la ñu yegg si kon la ca gën a fës Khadim Diop xëyëb tournée ci banlieue bi jëwriñ ji ñu dénk wàllu ko mbënn mi dem nimiku ji euh, lii di kon euh, pompage ndox mi fu mu toll gannaaw taw yu am solo yi fi wàcc ci njeextalu ayu bés bi waaye ca yenn gox yi ay pancarte euh, ñoo ko fa teroo fu demee ne unité 3 ca Parcelles Assainies ca Kër Massara askan wa ñoom ñoo taxaw wax ak moom ni ko nañu ñëw yeggale liggéeyee ñu fa sumb ay weer a ngi waxtu yi ñoom ña ngay dund ay euh, jafe-jafe parti politique bu wàllu si ci lang gi Thierno Lo moom moo samp kon dëndëm alliance pour la paix et le développement noonu la duppe partem gëm sa bopp la ca daal di tekk nañu ci dikk ca kanam tuuti ca ndaje ma ko doon sos wàllu xibaar ba tey ji fanweer ak juróom-ñetteelu ayubés bi ñu jagleel alphabétisation door nañu ko démb ci téeméeri nit yoo jël ci réew mi juróom fukk ak ñaar yi kon feru ñu fenn ijji ni ñu koy waxee mu doon kon jafe-jafe wu rëy wu ñu war a saafara xibaaru bitim réew bu ñu taxawee ci situation ba ci Syrie États-Unis ma ko bëgg a song ànd ci ak France njiitu réew mi Macky sàll wax na ca xalaatam xam xamle na ni France nekkut moom kott ci dossier bi nañu xaar kon rapport ko kuréelu mbootaayu xeet yi lu mu dogal laata ñoo xam ba xam dañuy songu am déet réewum Syrie des na ko faram-fàccee ci kanam tuuti ni tuut kon ñu yaatal loola lépp. mbokk yi ñu leen di gërëm di leen sant di rafetlu kon euh, ànd bi xibaaru euh, digg bëccëg gi dañ koy doore ak ñi dund waxtu wi ci mënd mi ndox mi songu leen rawatina gannaaw taw yi nga mente ni wàcc na ci gox yu bari euh, ci njeextalu ay bés bi loola waral jëwriñ ji ñu dénk wàllug inondation moom Khadim Diop xëy na kon sol dàllam wàcc ci terrain bi xool réseau hydraulique bi fële ca Mbaaw jaar na it ca Wàqinaan boru Parcelles Assainies Kër Massar Nguur nguur gi di xool pompage ndox yi kon fu mu toll ngàcc beeg yu ni mel eh, lan moo di gàllankooru gaskan wi waaye fu demee ni unité 3 ca Parcelles ni ñoom xamal nañ ko ko bu baax mu dugg ci noppam wala sax ay gëtam ndax ay pancarte lañu ko eh, teeroo Euh, moom jëwriñ ji euh, di ko sàkku ci euh, gouvernement am kon ak ñi mu àndal ci wàllu liggéey bi ñu ñëw kon àggale loolu ñu fa dooroon ci wàllu travaux ay weer a ngi booba léegi nag ñu gis ni dara sottiwul ci booba liggéey bokk na kon ci li leen jural booba situation ñu bëgg kon foofa ci Kër Massar Parcelles Assainies unité 3 ñu ñëw àggale liggéey bi ba waral ñu xëy kon yëngu yëngal nañ ci dellu si ci wàllu image ci xibaaru euh, ngoon gi géopolitique gi beneen parti bu bees alliance pour la paix la développement gëm sa bopp Thierno Lo moom moo ko jiitee nekkoon na fi jëwriñ ju ñu dénkoon wala tourisme artisana euh, ci nguuru ko maître Abdoulaye Wade moom nag nee na euh, mouvement bi mu taxaw partem bi sax la ñuy wax la ko tax a jóg moo di askan wi kot Pape Demba Cissokho Diafara Ba a nga woon kon ca tudd ba langue politique Sénégal am na kuréel bu bees alliance pour la paix et le développement judd na ki ko taxawal di Thierno Lo nekkoon jëriñ lu bëri yoon ci jamonoy Abdoulaye Wade. fekk mu ma kenn li may def mooy damaa yor mouvement boo xam ne bii ñun ay sénégalais lanu di war a liggéey pour changer nekkinu askan bi ci biir loolu lu def bu ñu ci doon toog Macky Sall gis na ñun li ñuy liggéey am na njariñ pour askan wi mu ñëw nañu kaay leen ma ànd ak yéen pour que lii ngeen di def mu gën a gaaw gën a dox ñu ko d'accord. kooku dañ koy wax d'accord ñëwal ñu def ko pour changer nekkinu askan wi mais ñun du duñu tëb fii sempeeku dem dugg ci biir APR pour nekk militant APR pour que Macky Sall def ñu ministre mbaa Macky Sall jox na loo xam ne man Thierno Lo kese maa tax mu di ko def. ginnaaw bi mu taxawalee APD gëm sa bopp kii di Thierno Lo na mën a samp ndëndëm ci élection locale yi nu ñu dënmal. élection locale yi mais man mënuma ànd ak benn jigéen bu yor 1000 jigéen ou bien 600 jigéen ñu tàmbalee ci taabal boo xam ne bii 1500 lañ fa doon gagné. di dem ba taabal bi di gañee ay vingt mille ak ay trente mille ngay développé di yokk koom-koom askan wi di ko xëyee di ko fanaanoo ñu ne léegi nañu seet ki nga xam ne bi la ci suñu gox bi yëpp moom moo ko war a yilif war nekk maire bi jigéen jooju ñun nga yóbbul dem jël ko. mais dañ ko naan jël ko parce que soo ko jëlee ci ngay gën a mën def li nga doon def moo tax ñuy encouragé ñu nekk ci suñu mouvement bi ñu positionné wu pour jël collectivités locales yi. naam kuréel politique yu bëri ci réew dafa bokk ci ponk démocratie Sénégal moom léegi mu jege lu mat ñaari téeméeri kuréel politique loolu di indi ay jafe-jafe yu bëre saa yu élection di jub si yenn saay sax mu jur ay lëngoo yi nga xamante ni xel nanguwu ko. alphabétisation ak jamono ju ñu toll vingt unième siècle thème booba kon la ñu jël ci fanweer ak juróom-ñetteelu ay bés euh, bi ñu ko jagleel tàmbali ko ci démas ji mu mel ni ci Sénégal doon na fi ba tey euh, jafe-jafe ndax téeméer rek euh, téeméeri nit yoo jël juróom fukk yi ak juróom-ñaar ñoom kenn tàggatu leen ci benn kàllaama ngir nag indi ci ay coppite bëgg nañu gën a taxawal kàllaamay réew mi ci wàllu njàng meek bind mi loola kon lañu xamle ca ndaje ma woon démb kañu ko bàyyalee nem si yàlla Cheikh Anta Diop eh, Cheikh Tidiane Dione di ko limu ñi nga xam ne mënuñoo bind te mënuñoo liir ba léegi mu ngi wéy di jéggi dayo fii ci Sénégal ci xayma daal téeméer boo jël juróom fukk ak juróom ñaar ci ay doomu aadama ñoom mënuñoo bind te mënuñoo liir naam lu tolloog ñaar fukk ak benn ci ay kàllaama jot nañ leen codifié teewul jafe-jafe yi ba léegi ñu ngi wéy rawatina ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi ak ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi ngir saafara li ni mel nguurum Sénégal mu ngi ci sàkk ay pexe lu ci mel ni daal di wéyal lii di alphabétisation yi ak ay mesures d'accompagnement ci ñi nga xam ne ñoom ñooy bind ci làkkum réew mi. ay projet la yoo xamante nii dafa war a relancer l'alphabétisation au Sénégal euh, parce que d'après il y a sept ou huit ans daanaka amatuloon benn grand projet boo xamante nii couvrir na la moitié du pays même pas la moitié du pays yeneen projet yi ndaw fi nekk ci li ma dégg ak yu mel noonu mais lii moom dal na xel. fond d'édition bi mu ngi suñ kanam chantier la ñu ngi ciy xalaat di ci bind di wax ak experts yi di wax ak ministère euh, yi nga xam ne ñoom ñoo wër alphabétisation pour en tout cas ñu def li ñuy wax environnement lettré parce que boo jàngalee nit ki ba pare. te amul foo xam ne mu nga cay liir di bind di fàttaliku kon moom dafay delluwaat dañuy wax retour. dootul mun mun nga toog d'ici quelques années mu mel ni jàngaloo ko woon. niki ren daal di yemoo ak fanweer ak juróom-ñetteeli yoon bi nga xam ne lii di semaine nationale ñu ngi koy amal waaye ki ñu ko tuddee moom mooy Cheikh Anta Diop ba tax sax ki nga xam ne moom moo daal di teewal njaboot gi moom daal di xamle ne ak réew kenn mënu ko suqali ak kàllaama réewu jàmbur. lépp loo gis ñu koy jàngal xale yi tey jii rek suñ ko jaarale woon ci làmmiñ yi xale yi nàmp day daadee yomb ci ñoom ñi ñuy wax tey jii ci àddina yëpp muy ay États-Unis ay Chine ay Japon ak France ak Allemagne ñu leen di tudd fu ne di xam ci réew yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo développé. mais amul benn ci réew yooyu ba nga xam ne mu ngi suqaliku ci làmminu jàmbur ku ci ne sa làmmin ngay ngay ngay ngay utiliser. juróom-ñetti fan jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru septembre direction de l' alphabétisation et de l' de base moom daal namm indi ay pexe yu bees yoo xam ne dañ koy jagleel ñii di jigéen ñi waaye tamit fexe ba ñii di jigéen ñi seen mbëbët ñu mën ko di ko la ci ndaje ma jëwriñ ji di Ndeye Marième Badiane xam na ne ni nguur gi nag dana taxaw jàpp ci bu baax euh, rawatina éducation informelle maanaam ñi nekkul ci euh, l'école yeeg euh, yooyu mu gis ni bu ñu yoree programme yoon yokkute loola da ca am solo ñu déglu ko ci micro suñu reporter. wax nañu ko wax nañ ko bu baax insisté nañ ci ne président de la république dafa def ci ay priorité am l'alphabétisation surtout nag. yu jëm ci jigéen ñi président lépp lu jëm ci jigéen ñi dafa euh, daf ko soxal te xam nga jox jigéen lu mu mën a waxee lu mu mën a dinde muy alphabétiser ko dafa nekk lu am solo joxe ay financement yoo xam ne dina leen may ñu mën a dem ci terrain bi ba sensibiliser nit ñi ba nga xam ne jigéen boo woo ko ñëwal ñu alphabétiser la dafay yomb ci moom parce que fekk na conscientiser nañ ko ba pare waxtu woowu fu demee ni boori Kolda ak la ko wër ñi nga xamante ni jotoon nañu faa dal euh, lekkool ñoom dafa mel ni léegi l'école ub euh, Gambie moo leen gënal kon bu Sénégal dañu fay euh, jógee di dem kon ca réew moomu ñu dendal di Gambie di fa inscrire seeni doom loola waral ñiy taxawu njàng ma foofa ca Kolda sot seen dàll jug taxaw ngir indi ca saafara Abdoulaye Diallo. mbir ma tàmbali naa jéggi dayoo comme ni ko waa frontière ba firndele ci ay kàddu boo xoolee par rapport à ak école yi nekk Gambie ci frontière bi foofu mooy ñetti dëkk yooyu Kudan Jaxali ak Brikama dëkk yooyu yi dañuy rafet te élèves yi bu ñuy solee dañuy naaj parce que lu tax école dañuy rafet te te te li nekk foofu yaa dafa naaj quoi dafa rafet loolu moo leen di tax ñu yóbbu seen doom foofu. et ensuite soo demee jàngi Gambie 12 ans quinze ans 20 ans nga nga am sa liggéey nga ñëw soutenir sa parents yi. loolu moo nekkoon phénomène bu poussé parents yi di leen di yóbbu seen xale yi di jàngi Gambie. melokaan njàng ak i njàngale bii xew ci l'école yu senegal la askan woowu ŋañña. Eh, dañu seetlu ne xale yi am na ñu bare ñu fi des mais am na ñu bare dañuy dem jàngi ci yeneen réew yi léegi nag ñu bëggoon xam lan moo waral loolu pour xale yi mën a jàng ci école yi nekk ci frontière yi xale yi mën ci des. ci loolu nag ñu jéem a xayma aussi lan la ñu war a def. ndax xale yi nekk ci environnement bu baax environnement boo xam ne dina leen mën a tax ñu tàggal leen bu baax ci ëllëg seen ñu mën a am liggéey. amal nañu fi ab jotaay ci teewaay ab délégation bi bàyyeekoo ca makaama jëwriñ bi ñu denk wàllu njàng ak njàngale te ñu ngi si waajal ay pexe. ñu ngi analyser raison yooyu xool en réalité par rapport au yooyu naka la nekkee dëgg-dëgg. ba ñu indi ay solution quoi bu fekkee ne indi nañ euh, def nañ diagnostic bi ba xam raison yi dëgg li waral loolu ñu mun indi solution yi war pour régler problème boobu. mbir mi nga xam ne daa soxal bépp doomu réew mi war naa tax nguur yokk li muy amal ngir dooleel melokaan njàng ak i njàngale ci Sénégal. kuréel gi di eh, SYCODEV lu suqali Afrique tax ko jukk ak it mbirum eh, citoyenneté ñoom nag wàllu wér-gu-yaram la ñu wax gannaaw ñaa ngi mi kon nee nañ lu jëm eh, ci fexe ba ku ci ne mën a jot ci paj mi ca namu waree couverture médicale universelle nañu ci daal di jublu ab charte nag lañu ñu ca bëgg maanaam daal képp ku woppati mën a faju loolu la ñu wax tàmbali nañu campagne bi nag ca département Kébémer fa la ñu ko dooree Thierno Fall campagne feebar faju daal dinañ koy door fii ci communauté rural bu Jokkul xalaat boobu tukkee ci Sikodev Afrique ñi ngi ko gën a fësal ci wàllu jigéen ñi ki nga xamee ni si moo jiite googu kuréel dellu sene ci tànneefu gox bi di Jokkul. président Macky Sall moo ne woon moom bés bu ñu ko falee dina fexe ku feebar Sénégal mën a faj ñu ñu ne xel boobu rafet na waane nag ñu ne pour que mu am il faut ñu wasaare. programme feebar faju ba nit ñi daal di koy jël def ko say njëf ñoom ci seen bopp ñu ne woon nag dañ koy def ci bërëb yi nga xam ne fële nit ñi gën a néewee doole fële nit ñi seen loxo jotul seen gannaaw mu tàmbali ko ci zone rurale loolu moo ñu indi tey jokkul pour def suñu lancement wu campagne. feebar faj. ci ndaje mi nag kii di monsieur Kanouté daal di nay rafetlu bu baax xalaat boobu nga xamee ni si tukkee na ci président de la république waaye nag mu sàkku ci gouvernement bi ñu fexe ni ñu tërale ay loi yoo xamee ni sii dina fexe ba saxal couverture médical universelle bi fii ci biir réew mi. loi bi dafa am importance que ñu voté loi boo xam ni moom mooy naan léegi Sénégal samp na feebar faju mu daal di jaar ca pencu ndaw réew yi assemblée nationale. campagne bi nga xam ni door nañu ko nag si ko def Afrique mi ko tëral ci ñeenti objectif bokk na ci wesaare concept bi ba mu egg ci population yi ñaareel bi ñu fexe ba voté ay loi ci assemblée yoo xamee ni sii day saxal couverture médical fii ci diwaanu réew mi ñetteel bi ñu fexe ni ñu fulandee koppar yi nga xamee ni si jagleel nañ ko semi bi bi ci mujj mooy ñu fexe ba koppar yooyu lu ci ëpp rek ñu jagleel ko jàngoro yi nga xamee ni si ñeel na jigéen ñi ñi moom bëgg nañ gouvernement bi taxawu leen FAO kuréel gi ëmb jigéen ñi féetee ci Afrique sowu jant ñoom ñoo ko xamle ci lël euh, bu ñu doon def gannaaw ay jigéen ñu doon tàggat ci wàllu mbay ak yu ni mel euh, ci ñi doon formé ci technique yooyu la ñu bëgg nag nguur gi euh, gestu leen ngir daal yëf yi gën a jëm ca kanam ñëpp gis ci seen njariñ ñu seenu càmm bi raajaan ci leeral. ñu sàmm foog nga xam lu wëlis ñun foog ñu xaar ni ñu mëne soog leen a jugé waaye sañ nañ rek wax ne bu ñu sañoon tey taxawaayu jigéen ñi eh, bu ñu ko reconnaître ba pare te xam naa ne reconnaître nañ ko ba pare ñu lu ci di leen jàppale ci ay xam-xam xarala. jàpp leen ci ay jumtukaay jàpp jàppale leen aussi ci euh, ay ay ay yoon yoo xam ne yi li ñuy liggéey tey dinañ ko mën di exporter di ko jaamee mais gën di ko jariñoo parce que ñun tey li ñu tax a jóg dëgg dëgg dëgg mooy fexe ba euh, le consommé sénégalais le consommé local li ñuy jëfandikoo di ko defar ci produit fii xëy na yàlla mun naa def ngeen gis ko. bu ñu sañoon nit ñi di ko di ko consommer di ko jëfandikoo bu ko defee tey ñii nga xamee ne noonu lañ nekk di importer farine di importer ceeb di importe leneen ba dëkk bii mënul naat na war a naate ñu tàmbali di lekk li nga xam ne moom la ñu jëfandikoo ndax loolu it nag mooy développement yooyu it ñu ngi ciy xaar ay jéego. muy kon euh, Khady Fall Tall jiite AFAO Ousseynou Thiam taataan ay euh, kàddoom wax ci gone yi ak euh, mbirum vacances yi ñee nga ca cours de vacances yi waaye am na ñoo xam ni moom ña ngay vacances dëgg fa ñu ko def nag ci géej gi féexlu ku ci nekk la nga ca jublu ci waajur yi yóbbu seen doom ci béréb yooyu bu weesoo kon waxtu yeeg péex meeg yu ni mel ñenn ñi gis nañu ni ci wàllum xel dafa am solo loolu ci tout tànk bi Aminata Mbaye Fall Diafara Ba reportage village Maïdema, Manèche. Tu viens tous les jours ou bien tous les week tous les week géej di bërëb bu xale yi di gis seen bopp ndax li ñu ci mën a bànneexu tey ji bari na ay waajur yu ko xam ci ñoom. je trouve que plage bi dafa bien am na sécurité et puis été il faut que xale yi génn aussi pour ñu mën a nekk en contact am nature bi ak yeneen nit yi aussi quoi pour pouvoir communiquer avec les autres. xool ñenn ñi aussi euh, seen comportement. di ànd ak seen parents yi ñoo daal ndax ñu mën a kii féexal seen xol yi noonu te plage bi dafa am sécurité daal. Mm. xale yi nga xam ne foo rek la ñu bëgg ñoom ci seen wàllu bopp du ñoo koy weddi. ma maman mon père et ma soeur. fi a foowee bëri na léeg-léeg daañuy dem ci balançoire yi. waaw j'adore. ci wet gi Liberia di jigéen bu am juróom fukki at ak benn mu ngi bànneexu ci tekk ak dalu bërëb bi tranquille plage bi dal na am na foo am na it sécurité looloo tax ma taamu ko ñu bari ci ñi ñëw ci géej gi li ñu ci gën a taamu bokk na ci kaaraange ak anamu bërëb bi arène bi depuis un année ñu ne daal dañ ko bëgg def benn cadre boo xam ne c'est pour toute la famille c'est-à-dire que papa mun na fi ñëw yaay mun na fi ñëw xale bu tuuti mun na fi ñëw ku fi ñëw gis ci sa bopp doo gis lu la choqué moo tax soo xoolee si arène bi nii ñu jàpp trop aménagé ci sécu côté sécurité. dafa am benn euh, collectif boo xam ne gérant plage yëpp ñoo toog waxtaanee ko toog waxtaan def benn code de conduite boo xam ne gérant yëpp ñoo si tënk ñoo ci tënku. lu bëggal xale yomb lool lii di ndox. nekk lu baax ci xam-xam ak intelligence am bu ñu sukkandikoo ci yenn ci spécialiste yi ci kaw loolu yoon la seeni waajur di leen ci gën a taxaw ak a gunge ñu wax ci euh, cong ga nga xamante ni kon am nañu yéene cong ko réewum Syrie France ak États-Unis bëgg a doxalee nu ni mel euh, ka ca wax njiitu réewum Sénégal Macky euh, Sall moom nag la mu jàpp moo di mbir mi du France dong moom moo nekk ci dossier syrien boobu kon nañu taxaw la mu ca nag gis moom njiitu réew mi moo di daal ñu xaar rapport kuréelu mbootaayu xeet yi laata ñoo xam ku ne nu mu war a taxawee Ibrahima Juma Ba njiitu réew mi Macky Sall àdduna ci guerre ci Syrie li nu mel nag ci tugal la ko amalee bi ko njiitu réew bu France doon ko dalal ci ubbite juróom-ñaareelu jeu yu réew yi bokk kàllaama français di amal fan yi Macky Sall nee na nag nekkul ne France rek moo bëgg amal cong jëmale ko ci nguuru siri waa Slate Afrique bind ne njiitu réew mi nee na lu xew Syrie ñu ngi koy ñaawlu ak ndëgërlaay te ànduñu benn yoon ak kuy jëfandikoo arme chimique ginnaaw kàddu yooyu ñaax na waa Tugal ñu wut ay firndeel yu leer balaa lenn yaakaar na ne war nañu xaarandi rapport bi war a tukkee ci mbootaayu xeet yi bi war a leeral ndax nguuru Bachar al-Assad jëfandikoo na gaz ci cong yi amoon ci ñaari fukki fan ak benn ci weer wi ñu génn bi mu demee ci sommet bu G20 doon amal ci Russie njiitu réew Sénégal di Macky Sall laajoon nañu ko xalaatam ci Syrie wante deful woon déclaration publique ci wàllu découverte ci la ñuy taxaw gën leen a xamle ak euh, wàllu euh, cosaan fële kon euh, ca booru Fuuta mbirum jaltaabe titre la kon jàpp nañ ni nag mooy xamante ni moom moo jiite subalo yi ca village bi di Wending Mali Boli foofa nekk na kon aada boo xamante ni am na loolu solo ci ñoom ba ñu koy jox nag booba titre naka lañ ko war a taxawee ci wàllu aada xumbaay yàq lan moo ko waral Ibrahima Kane moo ciy dellu si euh, ak euh, reportage bi askan bi ñuy woowee ci balaw nii la ñuy fale seen buur ñu koy duppee jaltaabe mi waalebulel maaji mi rewi cubalele wuro kunda eeri mi teera noddumi mboojamme sura e duuni noddumi kelbe ñu ngi fii si dëkk subal ba bu mag ba bu ñu woowee Wending Maliboli féetee ci càmmeñu doxu senegal jaltaabe di it boroom dex bi mu jiite askanu subalbe bu mag boobee ci bërëbu dex bi dañu nu nettali itamit bërëb bi ñu woowee ngalanka muy déeg bu mag a mag buy bàyyeekoo ci benn wàllu dexu Sénégal bi dem fekk ji dex bi ci beneen boor ci digg dexu senegal boobe sax jigéenu subalo yi di fecc ak i woy maajo ndendi wendi maajon certe wendi so wendin la dehya tasawe foofe so wendin la dehya taqaliko subalɓe yi di banneexu si palub seen njiit boobee di jaltaabe gaynde yi dañu koy dooree wàllu tàggat yaram gaynde yi kon qualifié ngir troisième tour éliminatoire euh, coupe du monde euh, loola gannaaw ndam li ñu am seen digg ak uganda benn ci dara kon lañu ko mujjee daan euh, jongante ba amee woon kon fële ca Maroc Mame Fatou ndooy di ci dellu si ak moo xarma match li gën a am solo mooy résultat bi loolu yàgg nañ ko dégg kon nag li ñu mën a wax ci rencontre bu mujj bi nga xam ne bokkon na ci tour préliminaire éliminatoire coupe du monde yi mooy ni Sénégal gagné na ci kanamu uganda dóor ko benn bal ci dara but bi nag ki ko dugal mooy Sadio Mané ci quatre-vingt-cinquième minute gannaaw bu mu amee passe bu leer bu Moussa Sow bi nga xamante ni moom it bénéficié wu na ci liggéey bu baax bi nga xam ne daam Ndoye def na ko. sénégalais yi nag commencé jouer wane seen bopp ci soixantième minute bi looloo tax ci deuxième mi bi occasion yi gën a bëri Mame Biram Diouf ci ñaari yoon manqué cadre bu adverse bi ak boppam soixante-cinquième minute Henri Saivet am occasion bu leer gannaaw ba baaru équipe adverse bi repoussé euh, tiir bu rafet bu mu def waaye li ñu seetlu mooy ci premier mi bi jafe woon na loolu monté sénégalais yi dañu ngi doon jouer à onze contre dix gannaaw ba ñu génnee ki nga xam ne mooy Ougandais bi ñuy wooyee Walozimbi ci trente-seizième minute Sénégal nag tàmm musiba mooy di dugg ak jafe-jafe ci ay matcham bi yoon mu defaat li ni mel rythme bu yéex ñenn ñi ne rythme euh, buur la ñeneen ñi ne crispation frustration ak ragal a ñàkk xëy na moo tax ñu commencé nu ni mel milieu Sénégal bi nag kenn gisu ko Euh, ci euh, fanweeri simili yu njëkk yi ak jeu boo xamante ni statique na amul appel amul mouvement dina jafe nga déstabiliser équipe ougandaise bu booloo gaaw ci ay passe ba pare amul benn complexe ci kanamu sénégalais yi ougandais yi am ay occasion ci ay coup franc yoo xam ne jot nañ ko am ci première ak deuxième mi-temps bu na kundul tamit wane boppam bu du woon loolu xëy na équipe bu Sénégal bi dina am mbetteel li ñu seetlu tamit mooy duggum Dame Doye ak complicité bi nga xam ne am na kook Moussa Sow euh, tax na euh, Sénégal wane beneen image ak beneen vitesse ci wàllu jëwam waaye nag lii di matchu Sénégal Ouganda bi kenn du ko fàttaliku ci histoire euh, ci wàllu jeu ak wàllu but Sénégal nag bu bëggee am chance su dem ci ñaareelu coupe du monde ci histoire am dina war a wane leneen yokk niveau de jeu ndax Sénégal nag jeu bi mu wane ci Ouganda dalul xel. gannaaw match bi euh, ay euh, réaction suñu reporter envoyé spécial kon euh, tatanal ñu ko Bouna Koundoul ak Sadio na yi kàddu la ñu yëkkati. victoire solo ñun lu ñu bëggoon tey rek mooy ñu jëlee fi victoire wala ñu jëlee fi match ñu comme que demee na nii alhamdulilah rabbil alamin mënuma mënuma daal complaindre mais xam naa ne mën nañ gën a mais lu ci ëppoon solo rek mooy ñu am ndam. Ah, waaw nit ñi gis nañ ni que premier mi-temps dafa mel na xawoon frustré da ngeen ragaloon c'était la pression de. de l'enjeu wala nu mu demee. non soo xoolee ñoom Ougandais yi nu ñu joué dañoo xawoon replier trop ndaxte ñun xamoon na ne ñoom seen jeu contre attaque lay ne te équipe boo joué contre attaque il faut nga xaw a patiente tuuti ndax soo ëppalee rek suñu ko defee benn contre attaque ndax ñoom noonu lañ doon joué deux occasions yi ñu am yëpp noonu lay demee suñu suñu defee benn erreur ci lañ koy capitaliser war a dugal te loolu bëgguñoon mu daal ñu bëgguñoo ñu joué match bi yëpp mën a bàyyi am benn yooxu su daal ñuy ñu daal di nag. li ma mën a wax mooy ay xale lañu ñu ngi e ñu ngi jàng euh, dañuy jéem a continuer jàng jàngaat pour pour mun a euh, jàppale Sénégal aller loin gannaaw marché bi nag askan wi ñoom ah, wax nañu nu ñu gisee daal ah, équipe beeg yu ni mel mu mel ni daal xel ah, dalagul ci wàllu woowu entraîneur bi nee nañ dafa mel ni daal yëf yi leeragul ci boppam waaye it bu weesoo loolu onze de départ fixe moom Alain Giresse amagu ko ñenn ñi tam na loo xamante ne wàllu patriotisme ngàññee nañu ko ci gaynde yi Cheikh Tidiane Dione ñu ànd ak Pape Xaali Ndiaye gisee ñenn ci askan wi. gagné nañ waaye kontaan moom parce que équipe bi dafa des. changement bi ñu def au niveau de Dame Ndoye apporté na benn plus ci entre jeu bi parce que daanaka mun nañu wax ne avant moo dugg amoon nañ benn handicap boo xam ne dañ am remonté wu bal. chaque match boo xoolee Dame Ndoye moo def différence moo zóoru Casa bi nu mu tudd sax Stéphane Badji ñoom dañu war a départ ñoom ñaar. mu duggee changé na amélioré na remonté bal ba nga xam ne suñu attaques yi am nañ benn possibilité boo xam ne moo tax sax boo moo créé mun naa wax ne but bi ñu ci am. Dame Ndoye saa bu duggee def différence ba pare ñu koy jël di ko teg si banc bi loolu c'est pas normal. seen milieu de terrain bi ni mu demee boo koy xool Ouganda yi ñoo ñu gën a apte ci milieu de terrain bi seen jeu moo gën a am euh, équilibre que suñu jeu si milieu de terrain bi. dañu manqué ay milieu de terrain yu téye ballon bi quoi. défense Sénégal am na tuuti faille mais défense défense Ouganda boo ko xoolee moo gën a organisé défense Sénégal. xëy na peut-être gars booy yi dañoo tiit au na tuuti amoon na amoon ay problèmes souvent au ci milieu milieu terrain bi. entraîneur bi def na erreur parce que erreur bi mu def mooy gis nga remplaçant yi mu jël ñi mu dugal noonu ñooñu ñoo war a départ si équipe bi. boo koy xool ci ñi équipe yi passé ay ñoom Bruno Metsu nañ équipe bu nga xam ne ni bu boo leen yee sax mun nañ leen classé mais actuellement euh, da mun naa wax ne dafay tâtonné. 2006 lañ gëj am victoire ba démb ay match nul mënuñoo am sax coupe d' Afrique. boo koy xool jour sénégalais yi boo leen seetloo bu baax dafa mel ni dañu gëmul mayo mayo mayo bi dañu dañ ko gëmul. parce que boo gisee à des autres euh, équipes euh, un Camerounais ak euh, comment dirais-je euh, Ivoirien ñoom ni ñuy joxe seen bopp ci seen football nation ñun dafa mel ni ñun gëmuñu ko bu baax daal parce que dañuy jaay affaire star ba mu ëpp. jeu francophonie football euh, ñooñu Aliou Cissé yi ñoom danañu daje ak euh, Liban ci euh, ngoonook tey jii du ñàkk nag ñu am daal beneen résultat ndax ba ñu gëjee am daal ba ñu njëkkee jàkkaarloo match nul kon noonu la mujjee xëy na bi yoon daal mbir mi kon soppiku ci weneen wàll basketball Sénégal di daje it ci ngoonook tey jii ak fédération bu nekkee fële ca Bruxelles. ñooñu euh, El Hadj Diop la ñu fay euh, fekk euh, bi yoon seen digg ak nag dañoo ñàkkoon 87 57 ci la kon jongante boobu mujjee woon mu soxaloon kon première journée yi tey jii ñu war a amaat beneen taxawaay kon ci wàllu basket mu soxal kon jeu yu francophonie mbokk yi kon mu mel ni fii la ñuy daal di yem rek ci wàllu xibaaru digg bëccëg gi rédaction bi dana dellu si incha allah 19h20 ci yeneen i xibaar ñu yenn jàmm.